à travers le monde. oui yéen am at. man du ma seen ndijaay. du ma seen pap. Mhm. du ma leen mhm. maye dimbali leen ma ngir yàlla may ma ngóone may ma nabu koor may ma mami dama si sonn. dama sonn ci loolu dañ may woo suba ngoon may ma ngóone may ma nabu koor may ma mhm. leen ma leen ma woowati ngir yàlla yorante bi ma sama jàmm. yaanaamaar. Ah, waaw xale yi ba leen leen nobee da ngeen di ñëw fii ngeen déclaré seen amour. dëgg la eh, euh, kilifa kilifa de gisuma ko moom est ma bu woowu ko. d'accord mais mais mais. Baye Ousmane euh, bi ñuy toog nii xam naa yaa ngi doon gis ki ma doon woo. waaw Cheikh Fall. sunu sunu sunu waa ji Cheikh Fall waaw nitu dëgg. waaw Cheikh Fall nitu dëgg euh, euh, doomu Maulana Cheikh mm-hmm. bu ñuy wax Cheikh Abdourahim Niass. dëkk fii ci Maris. Mm-hmm. voilà dañ ko interpellé léegi nii par la gendarmerie. parce que dit-on que dafa def ci otoom photo Hamas. Hamas men les frères musulmans voilà de de Palestine waaw mm-hmm. léegi bon euh, am na ay ay ay ay réew yu ko taxé d'organisation terroriste mm-hmm. mais Sénégal boo ko France la rek ak Amérique waaw mhm. Sénégal quand même bokku ci. bokku ci et que Sénégal a toujours soutenu la cause palestinienne. te Pa Ousmane ku xam Maolana Cheikh Ibrahim xam ko. ci soutien bu bu bu bu permanent. fës bu muy def ci euh, Palestine mhm. surtout. Mhm. voilà mais mais tey dañu am ñoom dañu am manifestation contre le génocide palestinien le vendredi tey jii. ñu ah, ah. ngi ko wax amee ci campus euh, ci université bu UCAD après prière bu 14 bi ñu ngi ko defee ca mosquée bu UCAD jeexalee ko place Omar Pène. peut être que itam fa la jëm. li tax mbir mi ñu daal di koy def mooy sauver cette partie de notre humanité soyons présents loolu moom loolu warul mën a nekk objet wu arrestation. en tout cas jàppale Palestine. Hmm. te moom juddil la. guide religieux la mbooloo nit ñoo ko topp te kenn xamewu leen ci caaxaan. Hmm. donc loolu da je considère ça comme une erreur peut-être nag xamuñu foofu dossier bi. moo tax mënuñu sori. mais bu fekkee photo bu mu taf rek. Mhm. ngir indi njàppaleem ci peuple palestinien. yaakaar naa ne loolu kenn mënu si arrêté doomu aadama. ndax réewu Sénégal. Sidi Lamine dañu koy rendre rendre hommage yàlla na ko yàlla yërëm. yàgg na défendre Palestine te mm. peuple sénégalais yëpp dañu leen di soutenir. kon je vois moom it ci logique rek la nekk. mais sànq danga wax dara sëñ bi da nga da nga wax duo entre duo bi am entre ñaari commissaires yi. Mhm. mooy. Euh, émission bi jeex na maam Seydou Ndour ak ak ak ak euh, Abdoul Wahab Sall. waaw macha allah li la wax loo loolu xamoo xam nga ne ñooñu man dama leen xam bu baax a baax. le commissaire Abdoul Wahab Sall il était à moom moo nekkoon DSP. Hmm. DSP ministre de ministère de l' hmm. mu jóge fa nekk commissaire bu Louga. Hmm. mu jóge fa nekk commissaire urbain bu Fatick. mu jóge fa nekk commissariat bu Rufisque. mu jóge fa nekk commissariat central bu Dakar. logiquement bu doon sax logique lañ doom moom euh, fële directeur u école police la waroon doon mais da ngay xool euh, moom par exemple man dama dama ne nan la président Bassirou Diomaye Faye réussir def casting boobu dio boobu entre ces deux hommes. bu nee maam Seydou Ndour kee sincériel la radar day am ci kanam Sall sincériel la maam Seydou Ndour nit la moo tax ma ne ñoom Bassirou Diomaye Faye bu dee les nominations nga xool hormis ay diplôme ak jàng maanaam man dama gis ne ay vertu mm-hmm. ay diine parce que maam say Ndour police yëpp xam nañu ni mu ragale yàlla ni muy jànge arxuraan ni mu gëme boromam boo demee ci Abdou Wahab Sall moom li mu gën a bañ ci homme de tenue mooy homme de tenue buy dóor citoyen loolu lañ ma wax te foofu te foofu laay jaaj laay jaajëfale xoola waa daaf ñii di defar carte xam nga man usé wu sama influence Ibrahima Sall man sama carte d'identité dañu sàcc samay pièces Mali ma ñëw comme tout boo citoyen dem jënd sama quittance def samay démarche dem daaf bi ma demee daaf ñoom dañ ma xool ñoom policiers yi usé wu ma man sama influence dañ ma xool rek defaral ma sama carte d'identité ci benn jour ma jóge fa dem bureau des passeports may jaajëfal adjudant Diène Faye xam nga la police dix division la police am mais ñu bëri opinion bi dañu defe ne police côté répression bi rek la ñuy gis ma daaneel côté répression bi rek c'est-à-dire ngeen koy c'est-à-dire c'est-à-dire lu opérationnel mooy maanaam ay ay commissariat yi ay ay émeute bu amee policiers yi génne ak yooyu loolu la opinion bi perception boobu la am si pour hormis loolu am na leneen lu làqatu ci ginnaaw police muy côté administration ñii di defar ay papiers ñii di def cybercriminalité ak loolu police nekk une très grande institution boo xam ne gëddëm war nañ ko ko joxaat war a joxaat gëdd gendre gendarmerie may jaajëfal adjudant jën fay ak Basirou bi nekk bureau des passeports nuyul ma waa bureau des passeports yëpp. xam nga ak waa DAF ak waa police yëpp. fa nga fa nga commissaire wax ab sàll may ma may ma cinq minutes waaw léegi may ma may ma daaneel man parce que non non xaaral xaaral moom mu ñëw rek. bu ñëwee moom nga fayal ko dégg kii géré na kii nga géré ko. moom koy fayal fay naa micro Ibrahima Sall. Eh, ayca ayca xam nga gis nga. dëgg la de façon li nga mooy bës bi. mais li li nga li nga li nga wax dafa am solo. oui c'est-à-dire euh, fokk ñu entreprendre. travail de réconcilier la police. ak askan wi. parce que li fi jóge woon dafa demoon ba créer une distanciation. et que ce ce ce ce duo ak Abdoul Wahab Sall man jàpp naa ni. parce que ay policier moom euh, hommes de tenue ils sont soumis à une hiérarchie. démb am na hiérarchie bu fi nekkoon dañ ko tey topp selon la légalité. mais tey jii nii. Euh, ñooñu noonu ci parcours bi nga wax. ci euh, intégrité bi nga wax. te jàpp naa ne président jomaay ak premier ministre Ousmane Sonko ni ñu ko defee ci administration pénitentiaire euh, ba teg le DG6 noonu lañ ko defee ci biir procédé par des entretiens def enquête de moralité xam ni ñii nii wax dëgg yàlla ñu mën a gérer sécurité Sénégal dafa am solo jamono jii nii mm-hmm. donc tey jii ni di wax yenn kii yi tey ñu nit ñuy gis insécurité bi di am xel bu dal moom mooy am ci euh, euh, salle xel bu dal moom mooy am ci euh, Ndour. mais xel bu dal tamit moom mooy am par rapport ak leur parcours fi ñu jaar lépp li ñu servir Sénégal en tant que des hommes de tenue fi ñu jaar ci formation te tey jii nii. jàpp naa ne euh, moom mooy projet bi gën a am solo te Abdoul Wahab Sall ci loolu la nekk muy la formation des policiers. la formation des policiers. merci beaucoup merci Ibrahima dimbali leen ma rek ngir yàlla dama leen ko saraxu. c'est l'essentiel. dama xam nga nit ñi dañu war a xam parce que nomination yi dañuy souvent ay ay nit de mauvaise foi ñuy critiquer mooy li Pape wax ñoom Ousmane Sonko dañ lay woo si bureau laaj la gëstu sa parcours boo xoolee. maam Seydou Ndour parcours am biir police li mu dem ci ay mission amul policier bu ko dem boo boo jëlee Abdou Wahab Sall ci wàllu bind bind ku ko dàq bind biir police kooku gisuma lool maanaam y'a une enquête qui a été menée kon moo tax ma ne président nan la réussir def le duo de ces deux hommes pour que ñu defaraat image wu police te yaakaar naa ne dinañ ko désar la c'est-à-dire bind boobu ngay wax ah bind yu am solo te actuellement bokk na ci ñi nga xam le premier ministre Ousmane Sonko mais tamit bàyyi leen ci liggéey bi nga xamante ne ñoom dañ koo xam donc sénégalais yi ngal la ngal la boo jiitalee nit mënoo koo fakkatal te it am na ay euh, ramification yoo xamante ne ci corps bu nekk am na fa mais ñu respecter intégrité nit et wax dëgg yàlla Abdoul Wahab Sall c'est quelqu'un boo xamante ne xam fi mu jëm euh, Mame Seydou Ndour la même chose ñoom ñaar nekk ñoo xamante ne duo la bu am complémentarité comme Diomaye ak Sonko donc Abdoul Wahab mooy euh, seen yéen a àgg na macha allah leer na de am na solo lool lool lool lool jërëjëf ah bon Pape Moussa du ngeen am sama kersa tuuti nag fay leen ma micro yi rangé bi yëpp fay leen micro yi